décision wax ak ñaari mbër yi mbokk yi baa ngi wax ak ñaari mbër yi li règlement bi nangu ak li mu ak Caatu Piyol Caatu Piyol mbokk yi Caatu bi moo la woon ginnaaw ak Ibou Afia Caatu Piyol moo ñëwoon ginnaaw Caatu Piyol jiital tànk demee nañu wet ñoom ñaar gis naa différence de poids tànk càmmoñ dañoo nar a xeex Caatu Piol moo ëpp. jàppante waaye ci bëri lay mujj. Ibou Afia Caatu Piol bi. Caatu Piol nga ko ba nga bëre bi. Ibou Afia Caatu Piol bi ña ngay xeex. door ko kubu dal seetlu ko. baat ak tontu wala déet. Ibou Afia taf eh, eh, eh. ko. taf ko. mbot xaatar bi. Ibou Afia bëre kat la. rëcc na ko sukar bi ko. Afia daan na Caatu Piol bi rëy na. Ibu Afia daan na Caatu bi. mais différence de poids am na mais xale bi daan na loxo ba mu laxas. ko ca ko ca ko mu jéem na ko sax rof gal gal. Eh, Ibu Afia mais xale bi loxo ba la. laay laay la bàyyi. jërëjëf Ibrahima